baaxe ko mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi mu jëm ci bis bi waaw safar li ko andi mooy dafa am benn yan bu yàlla doon yen jaam ñi yen boobee nag képp koo xam ne nangu woon na ko yenu yàlla day yëkkati ay darajaam may ko mu ramm aw nitam may ko mu doon kuy liggéey rasulullahi yen booba nak mom la cheikhul qadim jambar ji yanu fasiyene eneko, ko fetuk melaw dafa def xalwatu ci daaru ci jumaay daru khudus ji neena yonu yoon wi rasulullahi dama ko gis waye bima ko bëggee jox loxo dani ma soryaantoo nan lu tolloog digënté penku ak sow ñoo nuyo tay cheikhul xadim nee na dolliwaat sama jaamu yàlla dolliwaat sama jaamu yàlla rasulullahi bi muy ñëw ñaareelu ñëw bi sunu ñaari wóom yi danoo laalante mu wax ak man ni ma sa ne li dox sa digganteeg nga doon xutbu zamaani jamono ñetti weer kepp la xutbu zamaani jamono mooy nga yilif jamono mu nekk ci sa loxo balaa muusa jàpp jinax yëgal la ko daa ko waaye sopp gi nga sopp tax na sa borom nee na defal na la ko tey nga doon xutbu zamaan Sëñ Tuubaa ko loolu lu rëy la lu màgg la waaye damaa bëgg lu ko kawe rasulullahi ne ko lan nga bëgg mu ne ko bokk ci waa ahlu badrin bokk ci saxaaba yi foo teggee sa tànk yow rasulullahi ma teg fa sama gos yonent bi ne ko nag loolu moom sunu borom rek moo xam ban yoon la nit di jaar ba am loolu ci la ko wax na ne ko sa borom nee na loolu mën naa nekk waaye nag dangay ngay ànd ak ay noon ñu di la teg ay nattu taw doo ko wax doone kañ lay jeex doone metti na doone fu ngeen ma jëme doone lu tax ngeen may def lii loolu Sëñ Tuubaa musu ko wax metti na yàgg na fu ngeen ma jëme lu tax ngeen def ma lii musu ko wax kon liggéey bi loolu la laaj Sëñ Tuubaa nag ni ko sama ruu gi daal sàkkuma ko bu ma sama boroom borom téyelee sama ruu gi sama jëmb jii luñ ma ci teg lu mu metti metti sama jom atte na ko ci la ko wax nag ne ko man dolli naa ci man Cheikhul Khadim ni waxuma la wax u waaye dootuma wokkatu dootuma lekk lu neex dootuma sol yëri mbubb mu am poos dootuma gestu duma bicci loxo duma yëg bànneex loolu ma maa ko ci dolli ci sama pastif loolu moo tax sëñ Moussa Ka di wax ni lisaanu xaal dal di waqanteeg Bàmba ci saaru yuusufa mu téeñu yen ba yen ba nu yenoon xutbu ya ak labdaal ya te atta nun ko moo ko fab raw gaaya deñ deñ di wéyi te tawatul balaaya sóoratul laxawaani la am ci laaya moo tax si musaa Ka wax ni sëriñ si naa xiis lañ bàmbaay kaamil mbëri yëpp suq lañ bàmbaay kaabal man shakka fi dhalika fal yu jarribu képp ku sikki sàkka ci lii ma wax dara xëyal suba dem essayé jaar fi cheikhul xadim jaaroon ndax di nga delsi loolu nag moo tax liggéey bi di ñaari sabab mooy tukkib géej gi sëñ Tuubaa wax ni sababu xaybati ya anna allaha an anaala minhu jaaha wa an akuna shafian li qawmi wa an akuna qadiman fi dawmi sabab bi tax ma dem ci géej gi ci tukki bi anna allaha la ka yàlla namm mooy araada an anaala minhu jaaha yàlla moom la neex mu bëgg a yëkkati sama daraja wa an akuna shafian li qawmi ngir ma nekk koo xam ne damay ramm sama nit wa an akuna qadiman fii daw mi ngir ma nekk koo xam ni damay liggéey rasulullah kon kuy laaj li waral màggal gi lii mooy sababu baatin bi sababu zahir bi nag mooy li ko tubaab yi yónnee convocation woolu ko dara sëñ tubaa bind Cerno Ibra Faati ab leetar leetar boobu li ko andi mooy tubaab yi dañ daan bind ay leetar di ko yónnee ay jëmm ngir ñu andil ko sëñ tubaa di jël leetar yi di ko sàkkal pexe ngir ruuxale ko ak tubaab ak di jël ay leetar di bind wone ni sëñ tubaa ko bind di sàcc tampon yi tubaab yi di ko di ko ci di ko ci def ngir wane ni maanaam ñoom ñoo tubaab bi ñoo bind lii di jaxase sëñ bi ak tubaab bi ay ruuxale ay jaxase yu mel noonu Cerno Ibra Faati nag dem Ndar sëñ tubaab yónni ko ne ko boo demee neel neel borom Ndar li ma bëgg bëgg ko moom xamu ko ba di ko bëgg lim bëgg moom bëgguma ko kon mën nañoo bañ a jote dara ba ci desit mooy bu ma soxlaa ma wuy su ko jarul muy yónni ay ndaw ñu ñëw di ma jël si ñi ci yàq seenu der du ko jar man bu ma woowee ma ñëw loolu na bi Cerno Ibra Faat demee di yóbbu leetar boobu fekk na fekk na borom ndar moom yónni ay nit ne leen dem leen ngeen jëli Sëñ Tuubaa nga xam ne moom réeral leen Cerno balaa Cerno delluwaat Mbàkke Bari mu fekk moom bu demee Mbàkke Bari dana fekk ñu jël Sëñ Tuubaa ba andi ko ndar loolu la tubaab bi bëggoon waaye Cerno Ibra Faat nee na Sëñ Tuubaa ko ni biddiw bi mooy tiim Mbàkke Bari ci sama kër gi Cerno Ibra Faat topp biddiw bi ba agsi ci kër gi fekk Sëñ Tuubaa takk na bagage yi ba génnee ko 18 safar mu mu nar a wax ak sëñ bi sëñ Tuubaa ne ko Cerno dara matumaa wax démb ba nga taxawee ca ca jànj ba xorondom yi doon yéeg sa tànk bi nga koy faxas Ahmadu Bamba gi ci Mbàkke Bari di ko gis ci la ko wax nag ni ko sama digg ak tubaab bi dafa tilim laaj saabu bu mën a fóot laaj fóotkat bu mën a fóot Cerno njaboot gaangu noonu dénk nga njaboot gi dem ci géej gi war fas wu ñuy wax awnullaahi moom tubaab yi dañ ko doon jël si waaye jeewal la sëñ tubaab daje ak bi mu ñoom jeewal nag mbir mu rëy dafa xew ndax dafa jël ayab alxuraan bi suñu borom waxoon iblis muy inna ibadi laysa laka alayhim sultaanun moom la Sëñ Tuubaa jël ci la tukkee bay maanaam araf wu ne ak dëkk ba mu ko defee ci la wax ne ay yasa minni llahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi yaawali iblis kat duma naa ko jeewal ba wax na ma man Ahmadou Bamba ne ma foo jaarati ma jaar fa ca des mafa li xayri laahu fi ndari bi ahli badri lil usudi kadri sunu borom musal na ma laata ma àgg ndar laata ma àgg ndar tubaab bi dañ ni ko borom ndar nee nga fanaan si ndar sëñ tubaab ne leen waxu dëgg waxu leen dëgg jeewal fanaan tubaab bi attaqué ko waa ahlu badrin dikk xupp nelaw sëñ tubaab fanaanee jaamu yàlla xëy fajar teer war war raw tubaab yi lool gën leen a yàkkamtee àgg ndar tuba bi àgg nañ ci nak Ahmadou Bamba negnu li nga ñu royee dafa bari te ñun lañu waxon ñu jël ci la seigne Tuubaa ne len sen kilifa len yoni ngeen yeex man yalla ma yoni ma gaaw nan dajé ndar fekk leen ma dar, wa ci la sen dar fekk na suñu borom defal ko li ñi wax ak muccu musul ko ci tubaab bi bi mu àggee tax dafa jël temps dafa naafi naafi gu yag sax ñaar rakendar yi ngi gis liko and moy moy julli goku julli gi yoor yoor la dix heures bi mu jullee mi ngi naafila suratul baqara saar wu njëkk bi ñaareeru saar wi suratul ali imran tubaab yëpp taxaw gouverneur yëpp taxaw kenn wakkatuwut kenn wagasuwut kenn sante wax dara ñu déglu suñ tubaab bu nippee la wax ak ñoom la mu wax ak ñoom ñu boole ko gaynde waaye li tax tukki bi am dëgg mooy sëñ tubaab la mu wax ak tubaab bi moo naqari tubaab ndax daf ko wax ne ko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 bu mere ko nak ne ko dana la yobbu fo xani ne bu ma la fa yobbo do julli seigne touba ne ko katch nga bindal ne nga wax bara goko weddi dina ànd ak yow it temps yu manqué mois lolou la ko seigne touba wax lo ma wax ma lank luma yalla wax ma def ci sa karam te do ci mon tous duma lek ñam duma duma duma yobbu ndox duma lek sa ñam duma nan sa ndox ñu ne ko kon lan ngay lek dan ngay jëfëndiko seigne touba ne iza qarahtu sumunan aw rubu'a aw waqfin aw nisfin ru'utu mushbiha su ma jàngee benn waqafu alquran wala benn nisifu alquran wala benn xisibu alquran sama biir fees dell kitaabun bihi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarbi kon xaratu yowma sabti samina achar li xidmati almuxtaari fi shahri safar génn naa bisub samedi fukki fan ak juróom ci weeru safar ngir lan li xidmatil muxtaari ngir liggéey li rasulullahi moo tax keroog bi mu dugg ci bato bi دفعني علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم ذي المدينة بما يدق تبير قال جل ما برام خملني من ما يجور نكيل كوي لجي رسول الله كون ما قالوا تبا لي ما عندي سن تبا وقني بأكسيت أنا نعم ما تسانت لا يلا كما تسانت لا يلا لي دالي جنار بجيلي مسرتي بما جيلي تتوكي بنيوكي بوك لي ما عندي ما قالوا تبا والسلام عليكم ورحمة الله